bu gan yi ñëwee. ak mën a togg mën a togg mën a togg ba lum la taaj rek doy. mooy kiy togg. ak ki nga xam ne dafa forox a forox a ko fekk mu ngi ci buntu kër ga boot doomam di tam ak di wëre ak di kii. wallaay te ku ci nekk taxaw bàkku. waaw. kenn ki taxaw ne ko ah nijaay démb sàggat bi mu ne ko yuu mi may laaj foo takkee kii. Mhm. ndax rafet. kenn ko ne ko nijaay mu ne ko nee na ñam yu lekk musuñu ko lekk. kenn ne ko ni daay waaw forox nag mu ne ko bul laal su su gant bu ma reeree ba pare ba dix heures tot sama buntu bi su ma ko nee rat billahi wallahi kenn yëmut ak moom booba set moom moo leen mën suuf ba leen jàmbur kooka am na fu muy egg foo xam ne am na ay jigéen ñoo xam ni góor di amee ay yoom noonu la am amee ay jigéen ñi yoom ah oui de ah cim <laughs> soxna nekk ci biir kër maa la wax lii. am ci ku ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw koo xam ne lu yëngu ci kër gi moo ko indi saa yu ay amee ngi ñuy dugg di àtte di def lekk. te góor gi di ko fase. dañ koy ci kër këram àddina di ko faral di ko jàppale. soo ko tuddee góor gi xaru soo nee même ku génnee dem yóbbu ko ci mbokkam ba jàmm am mu dellu si góor gi feebar. daal di jooy ci kër gi di jooy. def grève de faim nara de na jëliwaat den ko. waaw ah, dafa am ni kii ni mu amee yoom yu góor noonu la amee ay yoom yu jigéen. baax na ci sëy mais mooy téye góor koo xam ne jabaram day rafet lool muy doxaani koo xam ne jabaram a ko dàq c'est parce que du ko seqee kii ngay bokkul su ko seqee ak kële ngay topp naan moom lu mu gis ci kii ak yooyu loolu kumpa la. góor yi nekkee côté bii ña nga naan. Uh-huh. ah waaw mais wax nañ mm. li mu saf ki ko macce ko xam ñoom xam nañu ñoom xam nañu. ànd yàlla amul ah gars yi doonoo mënante. ah doonoo mënante. Sophie si cafka bi la cafka Euh, ku nekk da nga am guub. <laughs> ku nekk suuf bi nel comprendre loo de ah. comprendre lu ma xam nga damay bëgg muy leer. léegi papa xas ma léegi papa xas ma man foogoon naa ne góor. xam nga kilifa boppam lay réfléchir xel. mu ne bi kilifa. Ah. pour man xel lay réfléchir. kaay na ci xel lay tànnee soxna. ah parce que eh, li ñu fi expliqué. bul sori bul sori lu tax. cër dina màggat. tànk dina màggat. Mm-hmm. karaw dina màggat. dëgg la waaye kii du màggat. xool ba. am déet. ah kay yow lañ koy laaj papa ñun màggatu. non dafa dafa nekk ci alxuraan du màggat jamais au grand jamais. loo ko màggee màggee màggee déggoon ñu ne mag amul maas gaay jeex mag amul maas ga mooy jeex. da ngay gis ñoom suñu wéetee entre eux ci biir paye ak maire yeeg yooyu doon yi xamante tooñan ñoom doon yi xamante entre eux doon yi waxtaan comme yéen ñii ngeen di waxtaan yow nga ne lan nga ne kon jigéen même bu jikko bi rafetul mën na toog ci biir kër gi waa ndax lan ma reprendre sa terme non non damay reprendre say terme sax ndax saa njaay gi waaw loolu yow sa yow laa ko jàngee yaa ma ko jàngal faal maanaam ndax jigéen maanaam ci kër d'habitude dañ naan kii dañ ko bàyyi ndax moo fi gën a rafet jikko mais li nga jox exemple forox ah, waaye tamit gis koo xam ne dinañ ah, ko jël yóbbu mais xam nga ne forox mu gën a ñaaw ca kër ga góor gi def grève de faim di tëdd ba doom yi mu ah. naan dem leen jëli ko ginnaaw moom waaw waaw nu indi ko donc feem ya papa ñu ne feemu démb dafa am ak feemu tey waaw feemu tey waaw am na góor ñoo xam ne dara neexu leen ci këru àdduna lu dul dégg ay fer yu yëngu. dafa am déet goût des couleurs ne se discute pas. ku nekk ak li nga bëgg. ku nekk ak sa am na non am na non man. mais papa ku nekk sunu bàyyi leen waxtaan ak sama papa li ngeen di dee non non baax na baax non non baax na. non xaaral rek ñu waxtaan rek yow non non xam nga walaay soobul walaay walaay soobul soobul xam nga tax papa. parce que papa dafa xam démb. waaw ñu ne déeta waaye ñu ne nañ ko nàndal tey. télé lay def il faut qu'il soit informé de tout ce qui se passe. non dem naa Paris moom dem naa Paris boole koog nit. waaw xam ne dina ko wan. waaw waaw jéegu léegi. wallaahi naka la ñuy téye seen sëy ci astuce. mu dem ba foofu lu bari découvrir naa ko à cause de cette fille là. léegi nag waaw léegi nag léegi nag question bi ma laaj balaa may jox kàddu gi ñeneen. waaw mooy astuce su démb. Hmm. ak astuce su tey kan moo man man man daal man ni ngeen di jongee man man man ni ngeen di jongee man man man man seenu jongee man jaaxal na ma. dafa xajam. waaw yow ginnaaw yow mënoo téye góor ba muy daw ba nga xam ne yow état d'urgence moo la koy delloosi. <laughs> mais loolu c'est très dangereux. mënoo téye góor ba nga xam ne Macky Sall moo la koy delloo si ak état d'urgence mais là c'est dangereux ah góor war nga koo mën a téye ba nga xam ne su génnee rek. yàkkamtee ñoom wallaahi. barka borom Touba su génne rek fu mu dem du fa am jàmm. waaw xas na toute une génération. Ah? asma ne xas na toute une génération. ban génération laa xas. ah bii nii. borom ah. génération couvre-feu papa. du ngeen jigéen de. jigéen de saf jigéen. waaw jigéen dafay saf jigéen. am am lan mooy saf jigéen jigéen dafay saf jigéen. lan mooy saf jigéen ah dafay saf jigéen rek. lan mooy saf jigéen. Ah? mais dama dem pa yow pour nga yaakaar ne saf nga da ngay dund yooyu ñuy jaay fële gi nga xam nga. waaw soo ayee daal di koy man jigéen jigéen amee moom ah? baat. ah ak nomb biir. ndombay baat. dem koy am nomb biir waaw. nga xam ne përëg day mel ne përëg yi maa njàng. waaw digg li mel ne ndigal samay naan. yow xam nga wax. <laughs> kon papa taay fii nii fu ñu jëm taay fii nii. Ah. Ah. Ah. Ah. Taïfin yi papa papa su fi dafa mer Taïfin la. jigéen bu bu pare. déedéet eh, ba tey taxul ma xas jigéen ju tuuti. ndax jigéen ju non déglul. dañ ko déglu dañ ah. ko déglu c'est important taxul ma xas jigéen ju tuuti de. Ah. s'il vous plaît jigéen ju tuuti. Mm-hmm. Kajoor na ko wax démb ak bërki démb ñu ne sooy takk. na nga takk ku oyof oyof koo xam ne ci dëkk bi ne teel ñu ne mi ngi toj dee gi ñëw na nga boot sa jabar daw ak fukki kilomètre mais tey am na ñoo xam ne xam nga ndeela tey su dëkk bi doon toj mënu ma ko mënu ma ubbi ay bokk lay des ah du ma doo ko mën boot daaw moom dix kilomètres doo ko mën këf rek daal <laughs> waaw mu mais ah. <laughs> waaw mu mais doomi jàppale na ah, mais yow dem na mën na laa boot daw gis naa ah, dem exemple ci ban